ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi ñuy suivre ci chaîne bi di Likzo TV sûrement bu fekkee gan nga ci chaîne bi mën nga abonné mën nga ba saal su cloche ngir vidéo bu ñu mën di dugal nga bokk ci ñu ko njëkk a seetaan ginnaaw ba kii nga xamante ne bii moo di Kaliphone Sall bi nga xamante ne bii Fatoumata Fouta nga ne moom moo moom moo dem gendarmerie Wakaam moom moo ñu wuuse moom la ñu téye bu leen fàtte ne Adja ne Kaliphone Sall da ko yàkkantaan ci biiru otom ba résultat yi génn bi nga xam te ne mooy kër docteur génne ko ñu fekk ne moom dafa am ndawam maanaam takkewuñ ko laalewuñ ko kii di avocat am ne li nga xamante ne mooy viol dañu koy teg nee mais ku et vérifié volontaire la ñuy wax ku leen fàtte ne dafa màtt Kaliphone Kaliphone dóor ko pour mu siggi yàq ay bagage su Kaliphone ki nga xamante ne mooy yaayu Adja Thiaré dóor ko Cheikh Ahmed Cissé dóor ko tey jii su suñu justice suñu réew wan nañu ñun ñii nga xamante bu nekkee opposition la ñu koy lambi lambe di leen tëj di leen di yox yoxal. mais mais may ma mais mais dama ne la. Kaliphone mu ngi fii a Thiar lu teree ñëw lan moo teree ñëw Adja Thiar Kaliphone jubum réew mi la moom moo wuyu ci il est responsable majeur et responsable aussi lu ko terewul suñu suñu réew may kan nga a wala wala provisoire bu ñu mu ñëw wuyu see am na kumba am ndey kumba amul ndey. dañ waat dañ koo téye waat mayuñu ko ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dossier Khalifa Sall bëgg a suuxal Khalifa Sall ça ne passera pas